bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyoo di yëkkati kàddu yi nuyoo ak ziyaar di ko teg ci loxob sëriñ xamsatu moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di kilifa penc mi ñu nekk nii di kenn ci sëriñ Fallilou Bousso mi nga xam ne moom lañ fekk si waaye di kenn ci njabootu Cheikh Mahamadul Fadal kon mën nañoo wax ne mooy kilifal jataay bi moo fi toogal Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di jëwriñu màggalu Kazu Rajab nga xam ne moom la ñuy waajal waaye di yor kàddu Cheikh Aboul Baraka mi nga xam ne mooy Cheikh Mahamadul Fadil muy ndigal lu jóge itam ci jëw jëwriñi sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Fadil waaye tukkee ca Cheikh Baraka mi nga xam ne mooy kilifa di sëriñu di boroom liggéey bii ñuy def ndax moo toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Fadil ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér waaye ndigal lépp nag jóge ci ki nga xam ne mooy Cheikhul Xadim ci kaw suuf di Cheikh Mouhamadul Muntaqa kon muy nuyoo bu sell boo xam ne moom leen indi ànd ak njaboot gi nga xam ne mooy daayira yi sëti Cheikh Mouhamadul Fadil yi nga xam ne ñoo baaxoo taxawu màggalu Kazu Rajab gii ci ndigalul kilifa googu mu wax muy Cheikh Abdul Fattah ak Cheikh Mouhamadul Moutada ak njaboot gi yëpp ñu baaxoo màggal gi saabu jublu si ñu def lu ñu tuddee rajabiyaat rajabiyaat yi nag dañ koy yaatal ni ko Sidi Mokhtar ka waxee léegi jàpp naa ne jërul ñu ci dellu mooy rek fedd li ak suuxat ak yeesalaat kóllëre gi nga xam ne dafa dog dafa doxoon diggante cheikh mahamadul fadil ak ay bokkam cheikh mahamadul fadil ak njabootuk cheikhul xadim cheikh mahamadul fadil ak lislaam bi yépp ñu baaxoo ko def at yu bare bari ba tey ñu ñëw nag fii ci kër Serigne Ousmane Bousso nga xam ne ku ne xam na ni mu demee woon ak Cheikh Mahamadul Fadil keroog bi ñu koy yëgle ji wax naa ne kër guñ dugg wala kuñ ko jagleel ren dañ naan kii moo waroon a jiitu fu ñu dugg rek dañ naan fii fii moo waroon a jiitu ndax seen diggante ni nga xam ne de ni la demee woon ak Cheikh Mahamadou Fadel màggal gi nag ren ñëw ci jamono joo xam ne dafa am xew-xew yu am loolu moo tax bu ngeen gisee ni ñu ubbee waxtaan wi muy wax li nga xam ne moo waral bis bi te alxuraan indi ko ni ñu koy waxee dafay bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko tuddal boppam moo taarixal bis bi moo wax xew-xew yi nga xam ne moo ci xew yépp ci alquranul karim mu leer naññ mooy ayaat yooyu mina dikril hakim nga xam ne abul baraka moom Cheikh Mahamadul Bachir jàng na ko fi ci njàng moo xam ne macha allah waaye teg ca nag ay bayit yoo xam ne naa Mahamadul Fadil moo ko defoon ci jamono yoo xam ne xat-xat amoon na jafe-jafe am ni mu ko baaxee def mu yëkkati loxoom yu tedd yee jël xalimaam def tadarro ci la ci borom bi subhanahu wa taala ñaan ko waaye ba mu ko defee booba ku ne xam na la ca xewoon mooy la xewoon lépp ci jafe-jafe suñu boroom saafara na ko moo tax nag ñu ubbee loolu màggal gi ren ubbee ko itam jataay bi nga xam ne moo njëkk ci jataay màggal gi ngir ñaan sunu boroom li nga xam ne ñu ngi koy dégg mu am ci jamono ji te doon lu doy waar waaye nag adduaa u silaaxul mu'min jullit moom ñaan mooy ngànnaayam ñaan mooy jumtukaayam xam nañ ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa joxe na ndigal Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadul Fadil jottali ko mu wax ne suba ne ñëpp maase ci jàng alquranul karim dellu tuub dellu ci borom bi subhaanahu wa taala sàkk ay sarax waaye waaye nag balonte xaq ci sunu biir na ko Cheikh Mahamadul Fadal daan diglee cee jamono naka jekk noonu la Cheikh Mahamadul Muntaxa taxaa si waat ne nañ ko def jaarale ko ci ñi nga Cheikh Mahamadul Mamar mi nga xam ne moom la féetale ci wàllu googu ñu ñaan dellu ci yàlla te xam ne loolu mooy sunu ngànnaay loolu mooy sunu jumtuwaay te borom beeg yërmandeem fu julli di maasee ñaan ko dana nangu lañ ko ñaan waaye li xew ku ne xam ne ne lu doy waar la kon ne ñaan li nga xam ne mooy sunu ngànnaay teg ko ci ndigalul ki nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim di cheikh Mouhamadul Muntaxa barkeelu ca loola moo tax ñu tuddee jataay bi ñu ubbee jataay bi nii ñu ko ubbee xam nañ ne itam jamono am na lu mu laaj mooy am na doxinu jamono boo xam ne doxinu zaahir la loolu itam na ko nit ñi bàyyi xel mooy di fagaru ndax kat ku xam na ne al wiqaayatu xayrun min te loolu dafa bokk ci gëm borom bi subhaanahu wa lu nekk nga jaar ca sabab sa nga xam ne moo lay yóbbu ca fa nga bëgg a yegg kon lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu jamono laaj la itam ci wàllu zaahir nañ ko jëfee waaye nag sunu pas-pas dëgg mooy ñu ñaan te xam ne borom bi subhaanahu wa taala lu xew moo ko def lu xew itam mën na ko soppi lu fi am mën na ko dindi muy kàddu cant yoo xam ne nag njaboot gi lañ ciy jiital muy sëti Cheikh Mamadou Fadil yi nga xam ne ñooy xalaat xalaat yu rafet yii ko xalaatee ba noppi nag dem laaj ndigal ci kilifa yi nga xam ne mooy Cheikh Abdul Fattah bu ko defee bu ñu amee ay xalaat yu bare dañ ko koy indil mu tànn ca tànn ne nañ def nangam nañ def nangam waaye bis bi itam dafay doon boo xam ne nag yëpp a ñor Cheikh Abul Baraka waaye bisub tey bi nag du ko ñor lool da cee soññee lool yàlla dafa dogal sax tey mu fekk mu ànd ak njaboot gi dem poroxaan siyaare ji waaye demoon nañ sax ba xalaat toxal bis bi jàppaat ko beneen bis ngir bëgg rek ñu xam fi nga xam ne bis bii toll na fi Cheikh Abul toll fi Cheikh Mahamadul Bachir toll fi Cheikh Abdul Fatah mi nga xam ne mooy jëwriñ ji Cheikh Mahamadul Murtada ak njabootu kër gi waaye ndaw ñi itam tànn googu nga xam ne tànn nañ ko sëriñ bi gërëm leen ci loolu sant leen ci waaye bi ñu jokkoog sëriñ bu so mu ne rek nañ ñëw ndax xam nañ ne tey wax dëgg yàlla jataay bi kawe na njort bi ñëwee sëriñ Sidil Moxtaar moom Cheikh Abdul Qadir lañ fi fekk defe naa ne kàddu yi mu fi yëkkati mënoon nañoo daal di ñaan ñibbi yàlla dogal Cheikh Sidil Moxtaar bi mu ñëwee itam leeral na ci loo xam ne ñu bari xamuñu ko woon ci diggante Serigne Ousmane ak Cheikh Mamadou Fadil waaye diggante Serigne Ousmane ak Cheikh Abdoul Ahad loolu feeñalaat na beneen taxawaay boo xam ne meneen njàngat moo xam ne mu ama ama ama am solo la moo tax kon Serigne Fadilu ñi lay xamal ne kat bi ñu ñëwee ñun ñoo waroon a dalal gan ñi waaye nag dañoo xam ne dañoo jóge ci sunu biir kër ci benn néeg dugg si waat ci benn nekk kon lii doon na loo xam ne ni ma ko waxee ñëpp dañ ne moom lañ waroon a njëkke ndax diggante bi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Ousmane demee woon na ko kon ci turu njaboot gi ñu ngi sant bu baax a baax a baax di sant itam euh, Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Karim mi ngi nii di soog a yegg si moom mooy jëwriñu liggéey bi waaye bii ñëw nag dañoo ànd ak Cheikh Abdul Ahad moom Cheikh Abdul Karim di rakkam nga xam ne moom moo jiite njaboot gi ñëw teewal fi Serigne Cheikh ba Serigne Cheikh mi ngi soog a agsi léegi kon njaboot gi Serigne bi mi ngi leen di sant ci taxawaay bi ak tànn ku rafet gi nga xam ne yéen a ngi koy tànn bii ñëwee itam ñu fekk fi nag bokk yëpp ñu wax ne naa yëkkati kàddu ñoom itam sant leen gannaaw bu ma sante ñi nga xam ne ñoo jiitu tàmbale ko ci abul baraka mi nga xam ne moo doon jàng njàng mi Seydi Mokhtar Ka mi nga xam ne moo ubbil Sëriñ Afia ci ubbi bu rafet bu yaatu boo xam ne njàngale yu bari am na ci waaye sant nag Sëriñ Afia ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne def na ko fi ak ni mu leere ak yim ci indi yoo xam ne lu mëntoon a ñàkk la ak ni mu ko dëppaleek jamono ak ni mu ko leerale ba ñëpp dégg ko dana dellu siwaat ñoo xam ne kat ndekete mag ñi ñoom dañoo déggoon seen jamono te dañ daan jël seeni matuwaay ngeen baal bu ma ko mën a wax dañ daan jël seeni responsabilité waaye dañoo xamoon fi jamono toll itam ñuy dox di jëf li jamono laaj ndax lislaam dafa dëppoog jëpp jamono dëppoog bépp barab dëppoog bépp xew-xew kon ñoom loolu njàng moomu lañ ñu war a lañ ñu fi bàyyil mooy matu fu jamono toll rek lañ ci war a def def nañ ko kër sa yaafiye ñu ngi lay sant di la xamal ne joxewaan nga bind bu yees nag boo xam ne bu am njariñ la bu jare jàngat la bu jare yaatal la di ñaan suñu borom gën a wéral cër yi gën a rafetal xam-xam bi gën a leeral xel mi ñu ñëw fekk fi mboolem njabootuk Mbusoobe mboolem bokki yoonu murit man damaa wax waaye Serigne Fallou dey ah wax dëgg yàlla ndaje mi mbégte amaat na ci ndax bokk yu daje bokk yu daje rawatina ni ñu daje tey lii rek jar na lu nekk rawatina ñu def ko ci weeru rajab bii nga xam ne nag mooy weeru teraanga di weeru euh, euh, bokkoo di weeru xarbaax di weeru xewal ndax teraanga ji gën a mag borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko sallallahu alayhi wa sallam mu teraanga joo xam ne mosu koo defal kenn ni ñu ko waxee ci bis bii la ko defee woon ci bis bi la ko ko defale woon ci guddi gi ñu jëm mooy guddi gi rajab eh, ni ko see abul baraka jàng ci aaya bu tedd boobu muy suratu najm defe naa ne leer na nañ waaye cheikhuna alxadim radiallahu anhu itam waxaat na ko ci ay xasaayid yoo xam ne ay abyaat yoo xam ne dafa dëppoo ak alquranul karim nam demee kañ la xewoon nañ ko màggale nañ ko terale sëriñ ba mu indaale lépp sëriñ bi wax na ko sural amini maal amini fawqal amini lil asfiyaa yi nga xam ne buñ ko doon topp xat baata yasri min baadi tuhri mudima bishri fil anbiyaa yi abyaat yu bare bari yoo xam ne sëriñ bi daf koo leeral ni ko alquranul karim leerale kon ñi ngi sant bu baax a baax ci guddi googu yi waaye nag sunu borom baaxee ñu ci nag sunu jëwriñ jii di sunu yaakaar di sunu buntu cheikhul xadim di suñu lépp muy cheikh mahamadul fadil mi nga xam ne ni ko sëriñ bi waxee ñëpp a ko bokk cheikh mahamadul fadilum ñëpp la kon bi mu ñëw moo tax fekk na fi fekk nañ fi bokkam yëpp muy njabootuk sëriñ Afiya Buso ñëw nañ fi mbooloo mu bari mën nañu wax ne kenn desut njabootuk sëriñ Ibrahima Buso moom itam ñëpp ñëw nañ njëriñ njabootuk sëriñ Afiya Ahmadou Ñang ñoom itam ñoom ñëpp ñëw nañ sëriñ Afiya mii doon wax ci la bokk waaye teewut dafa ànd ak mboolem waa kër ga tërandooy sëriñ Fàllu yi ñoom itam ñoo ñii ñoo bokk liggéey bi El Hadji lu Njaay ma nga fee teewal leen fa ñoom ñëpp daayira dongay tarbiye yi yi nga xam ne ñoom itam man jàpp naa ne sëriñ Alaaji faalak ak sëriñ Alaaji Faal ma yoroog sëriñ mbooloo lañ ñoom itam yàlla dogal ñu baa àndoon ak Cheikh Modou Fadal nekkoon ca daara ja di liggéey waaye yàlla dogal nag am ci ñoo xam ne sëriñ bi dafa leen a fa bon ni ko Seydi Moxtaar leerale féetalee nag sëriñ Ousmane ñooñu itam ñoom ñëpp ñëw nañ ànd ak seenu njaboot kon bisub ndaje la bisub yokku yokku bokk la bisub bisub bisub euh, siyaarante la daayira doomi dongo yi ñoom itam ñoom ñëpp ñëw nañ li taxoon sax ñu naroon na famm bis bi bokk na ci ku mel ne Serigne Habibou moom Cheikh Maodul Fadil ku ne xam ne digganteem ak Serigne Fallou Bousso te tey dafa ànd ak Cheikh Abul Baraka ñu dem ñu dem ñu dem Poroxaan Serigne bi nee na ñu ngi ñëw ñu ngi ci yoon bi bëgg nañoo fekk si jataay bi moo taxoon ñu ne woon nañ guddee ñëw Serigne Xabaan ku ne xam ne ne këram ak kër Serigne Ousmane ñoo taxaloo moom itam amoon na yéene yi fekk si jataay bi loolu lépp bokk na ci taxoon ñu bëggoon a euh, toxal bis bi waaye Serigne Sidi moom Serigne Abdou Khadir ni ma ko waxee waxtaan bi mu fi def doy na doy na doy na sëkk kon daal kàddu yu kàddu yu gàtt lay doon mooy sant rek sant rek di gërëm di ñaan itam lii ñu yàgg ko def te sunu borom defal ñu ci tawfiq ndax dañoo bëgg gone yi njaboot gi jàng ci ndax ndono lu toll nii ndénkaan lu tol nii ku ko am war nga ko sàmm te lii nag moo koy dundal moo koy suuxat dana tax ñi gëjoon a gise gise ñi xamante wutoon xamante ñi xamutoon luñ bokk ñu xam ko ñi xamutoon diggante bi nga xam ne moo doxoon diggante kilifa yu baax ya waajur yu tedd ya na moo demee woon ñu xam ko ndax dana tax ñu xam nuñ koy sàmmee ak nuñ koy jàppe ak nuñ koy gën a dëgërale defe naa ne tey ji bu ñu fi jógee jàngat yi ñu fi jëlee ak jataay bi ni mu demee kenn ku nekk danga nga gën a xamaat ne kat sëriñ Ousmane nii la demee woon ak sëriñ Fallou ñu def fi seede bu am solo ndax moom ni mu taxawoon ak sëriñ bi wàcc wàccuwaay bi mu amoon ci moom waaye ni ko sëriñ si di waxee néew na nga dégg ñu ne sëriñ Ousmane nee na nangam kon jataay bu mel nii dana tax nag ndaw ñi man cee xamee waaye mag ñi man cee fàttalikoo ko kon sëriñ Xamsatu dama ko toj léegi ne ko kat euh, lu ne dafa am fu mu waaw kàddu moom defe naa ne euh, ndax xar baax yi gën a màgg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquranul karim jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran tagg gi ko sunu borom bi subhaanahu wa taala itam tagge ci jikko la ko tagge ku jël alquran jël kàddu alquran defe naa ne kon loolu cër bu rëy la ma ne ko Cheikh Abdoul Ahad nag ku ne xam ne loolu bokk na ci yi nga xam ne jël na ko ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu jële ko ci sallallahu alayhi wa kon boo toogee noonu sant la ñuy def waaye kaddu gi nag sa kaddu la yaay wax ci kaddu Cheikh Abdul Baraka wax ci kaddu Cheikh Abdul Fattah mi jëwriñ yi màggal gi di jëwriñ yi liggéey bi wax ci kaddu Cheikh Mamadul Bachir Cheikh Mamadul Murtada ak Serigne Mam Mor ñoom ñi nga xam ne wax naa ne bëggoon ñu teewee jataay bi ñoom ñëpp ngir wane dayob ak tolluwaay bi nga xam ne Serigne Ousmane ak wàccuwaay bi nga xam ne amoon na ko ci Cheikh Mahamadul Fadil te Cheikh Baraka mi ñu defal liggéey bi soññee ci soññee ci loolu wax ci ay wax yoo xam ne ay nettali yoo xam ne ñun xamuñu ko woon ndax booba ay tout tànk lañ ñenn ñi ngi woon ci àll bi di jàng ba tax na liñ ci bari xamuñu ko woon waaye ñu koy waajal rek Cheikh Abul Baraka wax na ci loo xam ne wax dëgg yàlla xamuñu ko woon kon yow yaay wax ci turam yaay sant mbooloo mi yaa leen di yeewu yaa leen di ñaanal bisimilah.